secrétaire général de Pastef Ayib Daffé merci beaucoup Ayib tonton Ayib comme ni ko xale yi di waxee moom mi nga xamante ne moom moo jiite liste Sédhiou nekk secrétaire général jërëjëf euh, Sadikh di nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu patriote yëpp tàccu leen seen bopp patriote yi mobilisation bi rafet na merci beaucoup ñu di tëgg gaa yi tëgg gaa yooyu mën nañoo ànd liggéey waaye bu oras bu amee orateur buy wax ngeen ànd ak ñun dal rek nest pas

détermination patriote yi di wone seen engagement di wone également seen mobilisation donc di leen remercier ñeen ñëpp yéen ñu fi teew ak ñoo xam ne ñoo ngi seetaan à travers les réseaux sociaux di remercier également les sympathisants di remercier tous les alliés qui sont ici présents ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di wax ni on a atteint nos objectifs par rapport à la mobilisation de fonds. On a atteint nos objectifs par rapport au fundraising digital si nuyoo bi nag les militants su ma nee yi nag mooy ñu nekk ci structure yi le bureau politique national wax également les mouvements fàttewuñu benn mouvement mouvement jigéenu Pastef la jeunesse patriotique sénégalaise, JPS, Magui Pastef, le mouvement national des cadres patriotes, fàttewuñu leen, le mouvement national des enseignants patriotes, le mouvement national des artisans patriotes, le mouvement national des patriotes handicapés ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen teewaay ak seen mobilisation rafet na soo leen xoolee liste nationale Pastef bi di ngeen gis ñuñ fa cité yooyu yëpp ñoo ngi ci liste bi c'est une liste vraiment qui qui est à l'image du Sénégal une liste boo xam ne y a jeunes y a les femmes y a les artisans y a des cadres y a des handicapés y a des enseignants Il a tous les corps de métier qui sont représentés sur cette liste nationale ba pare liste bi ku ko jiite le président Ousmane le président Ousmane waaw nag président Ousmane Sonko moo ngi fii dina ñëw léegi wax ak le président Ousmane Sonko est ici avec vous pour communier avec cette jeunesse pour communier avec les patriotes pour communier avec les militants pour communier avec les sympathisants ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp lu ñu bëggoon wax di rendre hommage également à tous les élus qui sont ici présents mooy suñu député de la quatorzième législature ñoo ngi di jaajëfal seen taxawaay rafet na seen liggéey rafet na di jaajëfal les maires les présidents de conseil départemental dina pare rek enjeu bu élection bi élection législative moo ñuy permettre incha allah ñu la mise en œuvre du projet. présenté national de transformation systémique et le référentiel agenda boobu projet bi suñ ko bëggee mettre en œuvre il faut que absolument impérativement. obligatoirement ñu jox ko une majorité confortable une majorité qualifiée à l'Assemblée nationale inchallah nu ma gisee mobilisation bi nu ma gisee seen détermination inchallah majorité boobu dinañ ko am à l'Assemblée nationale une majorité qualifiée une majorité confortable donc loolu gëm naa ko parce que liste ba la liste ñu ko composé aussi bien la liste nationale que les listes départementales c'est des candidats de qualité su ma waxee ci structures yi mënu ma fàtte les coordinations départementales les 46 coordinations départementales et les coordinations de la diaspora maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu toutes les sections communales nuyu di jaleen jaajëfal tàccu leen seen bopp fu may jeexalee focal la mooy waay la ñëw Ousmane Sonko oh. du parti Pastef. oh. oh. l'espoir de cette jeunesse. oh. oh. est-ce que ça va. oh. na torsi tàkk na torsi tàkk na torsi tàkk Ne fais pas du tac, ne fais pas du tac, ne fais pas du tac. Ne fais pas du tac, ne fais... Souleymane, Souleymane. Ne fais gaay yi gaay yi yi may leen ñu may leen ñu gaay gaay yi na torsi yi gaay yi déglu leen déglu leen may leen ba ma ñëw may leen ba ma ma Ismaïla Lo bi Ismaïla du tëgg fële